ñaanal dal dal leen li benn bés rek mu jeex a yi asiko yi baax na baax na talal seen mineur yi yi gaa doon taal mineur yi baax na Aline si wala Aliou Sylla mbokk yi ñu suivre di leen bëgg di nekk waa benn tali ñaari tali Grand Dakar Biscuiterie tey nag boo Dakar moo ñu open press mu war a jogante ak Rodal du Lion samedi 11 février 2023 ci Arène Nationale Assane Ndiaye bool production tëgg ko mu nekk làmb ju waaye coow li coow li Boy Dakar mi ngi nii dañ koy bàyyi bu nuyoo ak ñi fekk ñëpp ñu champion yi waaye fekk nañ fi Alioune Sy balaa boobu rek waaw Badou yaa ma gën a xam responsable politique la kon na jeg ci Grand Dakar kon na jega na jega moom mu ñëw ñu wax ñu lu waral sa bopp taxaw fii ñu ngi lay di la siyaar waaw ñu ngi siyaar ñëpp di nuyu ñëpp di nuyu waa NGB Grand Dakar ñaa ngi tali biscuiterie di nuyu sunu mbër Boy Dakar di leen nuyu yéen waa presse bi di leen remercier seen taxawaay di la nuyu yow Madou 100 pour 100 doomu Grand Dakar doomu NGB euh, tey moom bis bi alhamdulilah ku xool mbooloo bi ni mu mel man ñëwoon naa fi open presse bi mu doon bëri benn combat waaye lii day firndeel rek ne def na ay jéego ci mbooloo ci bëgg bi ko NGB gën a bëgg waaw tey jii nii moom combat bi moom incha allah rabbi wax ji moom moom si sama côté mën na bañ a bëri nan ko ñaanal rek ñaanal beeg taxawaay bi yokk taxawaay bu ba ci jour ji bi incha allah rabi fii ak samedi yàlla may ko ndam bu sedd buy buy buy buy buy incha allah ñëpp ñu feete ko wasalaam loolu nag laa doon wax. kuréel xam na ne mbër dafa soxla jàppale. mu mbër bu tolee moment bii day soxla jàppale est-ce que yéen autorité Grand Dakar jàppale ngeen ki xam ne mooy booy Dakar. waaw bon ñun moom def nañ ci sunu liñ ci war a def rek. macha allah def nañ taxaw nan ko te incha allah dina ko continuer taxaw sur le samedi incha allah rabbi. waaw bu waaw jërëjëf. <laughs> dañuy xaar ci mobilisation bi nga xamante ni booy Dakar da koy xaar ñaari tali Grand Dakar bi si tëri tey lan ngay wax si loolu ci mobilisation bi war a demee sax. waaw loo tax ma ne leen di leen ko jàppale ba jour du combat bu soobee yàlla. di leen def ba bés bi taaru bu soobee yàlla loolu moom di leen di taxaw incha allah rabbi. dëgg la moom Abba Lambré ak Bouna di leen xool lépp mobilisation bi. bu fekkee ñaar ba ñetti kaa ñu teg ko fi pour jàppale waa MGB bu soobee yàlla loolu moom du dara. jërëjëf kooku mooy Alioune Sy waaye nag coow li coow li Boy Dakar a ko waral Boy Dakar mi ci dix victoire yi benn yoon la mos a dégg mu ñor gàkku doo moo ko daan waaye ki mu dajal day bëre kat di ndaanaan di Ronaldinho moo doonu songaan ngay waaye loolu lépp dina leer dañ koy mu nuyoo gars may leen rek Boy Dakar la ñu waxal ñu lay nuyu di siyaar waaw bisimilah auzu billahi mina sheytaani rajim gannaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur di sant ñu fi teew ñëpp di sant sama papa Alioune Sy di ko sant di ko sant di ko sant waaw di ko sant bu baax sama papa Alioune Sy maa ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax waaw aw ma fayam tey jii tey su ma génnee si su ma génnee dem si àll ba rek grâce à moom la moom ma ma jox xaalis mu ne ma demal nga préparer sa combat kooku aw ma fayam ma jël def si essence dem ma ñëwaat encore tamit waxaat ko sama soxla ma ne ko damaa soxla lii ak lii. mu def ko mu bind sec jox ma. waaw ah. na demal nga préparé waat. te ba léegi nii mu ngi xaaju naan day damay gën a jàppale. kon kooku aw ma fayam. waaw di gërëm tamit sama yaay Ndeye Sali Diop Dieng waaw Ndeye Sali Diop Dieng aw ma waaw Jean Baptiste Diouf. ñoo ngi koy sant ñëwal ci laamu ji. sama papa Jibril Wade maa ngi koy nuyu moom tam maa ngi koy sant di ko waaw sama turandoo sëñ Babacar si yàlla yàlla yokk maa nuyu kilifa diine di nuyu kilifa aada yi di nuyu ñu fi teew ñëpp di nuyu waa Aziko bi ñoom naar siis waaw aw ma seen fay ñoom fayal sans loi njaago yi maa leen sant bu baax ñoom Sowra Malick Baye Fall yi asxaabul jannatu aw ma seen fay kooku bu ma si moom moo yàgg kooku maa ko mën maa ko ëpp doole te di ñaan yàlla yàlla yàlla moo ko lépp nekk ndam incha allah. combat bi taxaw si léegi nekk ci loo ëpp liggéey. jaamu yàlla jeex na amul leneen préparé combat yi sama kilifa nekk sama gannaaw loolu la rek. amul leneen kon nag yaa ko mën yaa ko ëpp doole foo ko teg. loolu noonu dama ko liggéey xam ko. waaw parce que man yàgg naa comité man bëri doon jaaxaluma bëri ba pat jaaxaluma di nuyu tamit sama wéykat yi waaw Mariama ak yaayam ak ñu mu àndal ñëpp am seen fay depuis ñaaxaar lañ jógee ñëw ba fii. yes waaw xeebuloo ki ngay bëreel. ah. waaw xeebu ma ko. xeebu ma ko gëm sama bopp man lu ma gëm laa lu ma gëmul lu ma ko wax waaw. boo Dakar nuyu nañ la. fay nañ la. Ronaldinho di a man dëggal naa sama bopp yaa bu ma jëlee avance laa dëggal sama bopp te Ronaldinho nañ samp jaaga xeex gars yi dañoo fay seen xaalis pour ñëw xeex euh, seetaan combat bu neex nañ taxaw xeex faay lu neex ma jàpp ko daan ko wala ko maa ko dàq bëri maa ko ëpp doole man xale laa. dégg nga. dégg bu ma jëlee avance bi laa pare parce que bu ma jël avance di nelaw pare naa pour lépp pare naa pour xeex pare naa pour bëri di ñaan yàlla yàlla ma yàlla may ndam yàlla ma sëñ Babacar wala si. est-ce que xam nga combat bi importance bi mu am sa carrière. importance bi mu am sama carrière moo tax fii war a fii parce que ñoom seen jëm boobu xam nañu importance bu mu am moo tax fii mel mel nii tey waaw te beneen damay daan incha allahu rabbi fii day gën a feesaat gars yi gën see ñëw gën see jàpp ñaar dayu neex danaa diin wax ne na yow ma seet ko xeebu de maanaam sama gëm-gëm laa wax yàlla ma yàlla fekk sama gëm-gëm loolu la rek moom gëm-gëmam lay toog di wax man may wax sama gëm-gëm yàlla na yàlla nangu sama gëm-gëm mu may ma ci ndam bu set ñaari tali Grand Dakar bi si tëri ñëpp nga xamante ni ñooy dooleel booy Dakar. waaw di waar rek ñu xam ne affaire bi métti trop fu may waxee yow nii fu may waxee yow nii. deux mille cinq cent deux mille cinq cent laa dese. ndax combat bi. juróomi téeméer. waaw Kandji Kandji Kandji maa ngi lay woo si combat bi. Kandji production Kandji production. waaw borom bâtiment yu baax yi. TDR maa lay woo TDR. ñëwal jàpp ci combat bi comme si li day wala day bëre damay xeex damay bëre waaw ñun gëjoo lañ bu la blanc rouge ragalañu fu ah. Ah. lu nekk mun naa koo daane mun naa yor jàpp ko mun naa def lu nekk daan ko parce man loolu nattu moo tax sama jàng yàqu kon nag man lu ma neex laay maa maanaam dama ko mën dama ko tarbi baru ñëwal waaw baru ñëwal ndax am gannaaw buñ leen ñëw di la laajaat ñu gis ni nga waa Grand Dakar nga def waa ñëpp jóg topp sa ginnaaw pour wane ne mobilisation bu ñu defoon day passé bii moo koy am ah damay wax alhamdulilah rabbil alamin ñaar la ñu woon am nañ ko di gis Lagrosse di dégg caat ñu koy ñuy teew fii di dégg suñu mbokk mbër yi lii la ñu woon ñun dix mille pour cent sax na tey te bu yàlla tànk yooyu maa koy dox te day sax raxloo suñu mag yàlla ko yàlla may ndam soor yàlla ko yàlla may ndam boo mënul bi yàlla ko yàlla may ndam xalal ñaan yàlla yàlla may ndam dañoo réeree woon rek mais ñàkk a waxtaan moo am moo amutoon mais léegi déggoo nañ ñu ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay te yàgg nañ ko bokk léegi nag ñoo bokk dañu kon ne bokk ndey bokk baay Pape Ndoye moom ngay sant di ko gërëm moom tamit xam nga jàpp na si waaw Pa Abdou Ndoye doomu nday Gorgui Sy Dieng waaw waaw waaw baax na daaw dafa ñoo ngi koy sant di ko gërëm Pape Ndoye euh, Baba Ndiaye journaliste sant nañ ko gërëm nañ ko waaw geste yu nafet maxaa depuis France waaw à travers Facebook bi jàllale na na gars yi ñëw jàpp si bu baax a baax a baax waaw Abakara aw ma fayam yàlla na ko yàlla fay waaw maxaa lamb fu mu jëlee wax naa ko waxaat ko waxaat wax naa ko waxaat ko su ma paree fii nii dafa am quatre vocal yoo xamante ne dama jëm ci ñoom te ma koy wax du ma ci làqatu Bombardier dafa jëm nañ pare Modou Anta na pare waaw Tidiane Faye na pare pare nga pour affronter leen pare naa pour affronter leen man ragaluma fu ma jëm man mbër laa mbër laa de barki alxuraani karim dañ ma jàppale wallaahi mbër laa booy Dakar nga am lu la doy muy laa mbër laa ma juddoo sama maam bu jigéen. te nga wàññi noonu mbër laa su ma rek wax la wax wax la quoi. waaw di ñaan yàlla yal na yàlla motali yoon bi. Boy Dakar pare na ci nga xamante ni ku mi ngi yóotu koo xam roi des arènes soobee yàlla ndam dinaa leen ko indil te day ba faw indil roi des arènes ñu ngay bëggee fekk Alioune Cissé doon na président de la République. incha allah waaw di sant ñëpp.

gars yëpp pare nañ waaw suñu grand Daouda Ba tamit ñëw na ñu ngi koy remercier baax a baax waaw arrière leen arrière leen ñu ñëw. lii daa am Ba ñëw na da ngaa jox Daouda Ba moo ñëw ñu lay di la siyaar Daouda maa ngi leen ñëw di leen jaar bàyyi na si jàmm maa ngi sant bu baax lu waral tey teewaay bi fii ci open presse Boy Dakar lu waral tey teewaay bi parce que tey doomu ñaar tel moo xewle man ku ma xam xam na ne man kenn mënu ma takkaloo ak waa ñaar tel depuis vingt ans maa ngi fii si koñ bi ginnaaw nag ma xamante ne fii samay frères yu bëri mel ni ñoom Gunaama ñoom Alaji Dia ñoom Pape Samba ñoom Abba le vrai ñoo ma présenté mbër ne dama bëgg nga ñëw jàpp si combat bi incha allah rabbi mbër dañu ñëw taxaw jàpp si combat bi ànd ak yow nga daan jëlee bu rëy. incha allah ñëwaat si fête ko ci incha allah. ban appel nga bëgg a lancer ba waral nga jóge déplacement ñëw taxaw fii. waaw parce maa ngi nii léegi laa jógee bureau ñu wax ma ko ma ne ko lu mu métti métti naa ñëw Thiès laa jógee léegi si arrivé président bi waaye lu mu métti naa ñëw fexe ba gisanteeg mbër xamal ko ne ñu ngi si ginnaawam. non seulement rek di diggante téléphone il faut ñu ñëw taxaw physiquement war ko ne on est derrière lui te incha fas nañu yéene jàpp na ànd ak moom gunge ko lépp lu ci war dañ koy def incha wax bi nga ah? xamante ni. mobilisation bi nga xamante ni. di wootee rek doomu ñaar te lépp na ñëpp teew. waa ñaar tey Grand Dakar Biscuiterie tout le monde HLM Grand Dakar kii doomu Dakar la du waa rek ñaati Fass da ñëw taxaw jàppale seen doomu ndey incha allahu rabi ñu am ñu dem daan ñëwaat fete ko ci kattan yàlla. ku nekk xam nga ni mbër dafa bëgg ku ko jàppale mooy lan ay t-shirt ak ay billets yi ko aussi yóbbu ko samay yeneen kilifa yi nga xamante ni ko mel ni docteur Pape Malick Diop ko mel ni le ministre Abdou Karim Fofana. balaa combat bi incha allah c'est vrai que xat na mais dinaa def tout ñu ngi actuellement ci président même bu ñu ñoom di gisantuwuñu si na loxo dina ñëw incha allah rabi. waaw damay kontaan rek xam nga kii ne abaa moo tax ma gën ko miin waaw di ko sant di ko gërëm rek aw ma fayal yal na ko yàlla fay taxawaay bu mu taxawaay nii yal na ko yàlla jàppale si barke Seydina Muhammad. Ronaldo yow nee na nga wàññi wax li nga wax dafa bari. man damay wax ba mu neex parce que contrat la damay wax ba mu neex. waaw signature bi damay wax ba mu saf sàpp ñun gëddoo lañ dëkk ragaloo fi ñu jëm billaa walaay di gërëm di gërëm staff bi yëpp ama seen fay di leen remercier bu baax jóogu ambassade France jóogu ambassade France